tey nag li ñu féete woon mooy jafe-jafe làmb mm-hmm. ci Covid bi ni mu demee ñaareel bi mooy circulaire bi nga xam ne nii CNG bindoon na ko. Mm-hmm. envoyé ko promoteur yi. Mm-hmm. comme moom mooy kilifa bu mag gi ah, ñu ñëw pour sottante ay xalaat li nga xam ne loolu moom moo am ci làmb ndax ñun tey ñu gis benn boo xam ne nii institut dafay am tey dañuy gis loo xam ne ni ñuy def promoteur loo xam ne ni jaaduwul. ndax jàpp nañ ne fi réew bi toll ak mbas bi promoteurs yi rey seen bopp yor ay combat yoo daaw lañ ko régulé daaw lañ ko joxe woon avance

ñu gis ne pour la saison bi loolu gisuñu ko ci li ñu ko ci gisul ni ñu ko gisee mooy dañuy dañoo sentir ne dafa am kumba nday am kumba am nday kumba nday wala ñu am ñuy favoriser mhm. te loolu yaakaar naa fii ak deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans ci ginnaaw ñu ngi woon ci làmb ji di kon waruñoo favoriser kenn pour ay intérêt personnel ñu nag gis nañ loolu bu ñu gisee ne ah nañu xool nan la ñuy ministre bi pour ñu waxtaan ci ak moom. xool nan la ñuy delloowaate promoteur bi ñu am ak gëdd bi ñu am. mbiru bi fu ngeen ci toll d'accord ngeen ci wala. na yaatu suñu diggante ak a am. Hmm. ñun la ñuy wut ndax yaakaar naa làmb moom jàmm ci jàmm la xaj. Hmm. en tout cas ñun d'accorduñ ci position bi ñu nekkoon fa lañ nekk. Hmm. comme kilifa gi seet si nañ ko moom nee na dina jël ay responsabilité waxtaan kilifa yëpp ñu daje ñun waxtaan suñu biir ba jubóo ñoog CNG ñun dàquñu loolu ñu bisimilah bu ñu déggoo su déggoo amul lan ngeen compté pour def ndax kuréel ngeen. waaw li pour def mooy wax nañ ko wax nañ ko en tout cas moom nee dina jël ay mesures exceptionnelles ministre bi. Euh, mesures yooyu muy jël ñu koy xaar ñu waxtaan bu ñu waxtaanee bu rek. incha allahu rabbi déggoo am nañ yaakaar ñun bu fekk fal pour yaakaar xañ bi en tout cas li am solo ngi di xaar. ndaje mi am su ndaje mi amee su dee ko amee yaakaar naa presse bi dañ ko teewaat xam ni ko teewaat. ndaje la ndaje mi kañ la. loolu moom mooy xamoon xam ndaje mi kañ la. monsieur Ndiaye dañuy yi doxee mooy texte yi la CNG yor mooy booy tëgg lamb da ngay joxe caution un million. kon jàpp naa ne kenn du ko werante mais fi mi toll ak mbas mi jàpp naa ne promoteur yi yor seen xaalis daaw am ay combat mi taxawal nañ ko depuis daaw mënuñu bëgg ko régulariser mënuñu ko régulariser am ay jafe-jafe kon jàpp naa ne ñooñu boo leen yokkalul doole waroo te dañoo gis ne dañuy xañ pour néew ñu doole te ñun réew mi ñu nekk mu ñu fee néewal doole. gënuñ ko nangu. sax également wax nga ah, am. ne moom la xam nga tey bu ñu gisee non bu ñu gisee non si bu ñu gisee tey bu ñu gisee tey fi ñuy waxee nii nee na régularisé nañ combat Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Bombardier yaakaar naa loolu du lu jaadu ci làmb ndax ñun dañoo may combat yoo xam ne mbir yi joxoon nañ leen xaalis daaw tey mbir yooyu war a bëre mënuñoo bëre ñu gis ne ñu ngi taxawal yeneen combat yoo xam ñu ngi koy régulariser vraiment sénégalais yi sax waruñu ko rafetlu ba pare ñoom ñoom ñu ñuy jël dañuy jàll ci kaw mbër yi nga xam ne dëggoon nañ leen te loolu waruñu ko nangu ay wax nag kenn du ko raaye da wax li nga xam ne moo am wax li nga xam ne mooy réalité pour sénégalais yi mën a dégg